à mon premier mandat. ci sama mandat bu njëkk laa nekk te mu nar a jeex ca atum 2019. plus précisément en mars avril 2019. loole doonoon ay kàddug Macky Sall ñu nekkoon ci weeru octobre ca atum 2017 ñaari at a desoon ngir ñu song élection présidentielle yi ñeenteeli njiitu réew Sénégal bi nag nekkoon ci njeexitalu septenaawam ginnaaw ba conseil constitutionnel gantale mbébétam ngir wàññi mandat bi jële ko ci sept yóbbu ko ci cinq ca atum 2016 wi bi jël raw gàddu gi ci référendum bi ñu organisé woon ba mu waral nag ñu jële durée mandat yi ci sept yóbbu ko ci cinq li ñeel nag li mu mandat yi lu leer la ci waxoon on devait passer du dañu waroon jóge ci na ñëw ci na bloqué waaye nombre mandat bi loolee réglé nañ ko bu yàgg ci ñaari mandat la yemoon kon nag nombre de mandat bi changé wul dara waaye loolee dakkalul coow li ba tax sax moom Macky Sall mu dal di samp ab laaj pourquoi engager une discussion sur un débat lu tax ñu war a nekk di coow ci loo xam ne daanaka 2024 lay xew te sax nag amul benn sens ndax man xalaatuma am lu ëpp ñaari mandat suma réew mi joxaate euh, confiance ginnaaw élection 2019 yi peuple bi nag daal di ko jox confiance ca premier tour élection 2019 yi ca noonu nag mu fas yéene tàmbali ñaareeli mandat suñu sukkandikoo ci ñenn ci kàngam yu ko wër te seen xam-xam màcc ci wàllu yoon di professeur Ismaïla jox Fall La constitution du Sénégal est très la question. Article 27 di wax ne président dañ ko fal pour mandat boo xam ne benn yoon rek lañ ko mën a renouveler. Le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. ngir mu gën a leer ci xelu nit ñi. ne kenn mënula def ñaari mandat yu tegaloo ma bamtuwaat ko mënula def ñaari mandat yu tegaloo ma ko muy ñetti yoon kenn mënula def ñaari mandat yu tegaloo plus de deux ba léegi waxi mandat la ñuy wax waaye kenn waxul quinquennat wala septennat moo ne day sénégalais yi ba léegi amaguñu lu leen leer professeur Ismaïla Madior Fall daal dinay weddi waxam ba tax na faaw nag ñu leeral sénégalais yi ca noone nag lañu ko daal dee laaj ba xam 2024 da ngay présenté wu wala doo présenté wu oui wala non. 2017 la mu ci waxoon leeral nañ moo ne waaye bile yoon nag tontu bi doy waar lool. du nekk oui du nekk non. lëndëm lëndëm gi am ci tontu bi daal di jur nag coow lu rëy moom nag man daa la doon wax waaye ñi farek moom jamono ji la ñuy wax mooy premier quinquennat opposition bi nag moom ànd ci ak ñenn ci ñu bokk ci société civile bi ne suñu dégg lu ni mel pour ñoom nag kenn mënatu fi wax waxu ñetti mandat bokk na ci ñooñee ki fi nekkoon jëriñam wi mu dénk wàllu yoon. Euh, et euh, moom nag dañu ko euh, falaat muy ñaareeli yoon kon nag warula am ñetteeli yoon boo xam ne daf ci samp ndëndëm loolee daanaka sax moom moo ñu boole. Euh, que que j'ai avec président Macky Sall. Macky Sall mel ni ko takku ba dëgër. taxaw fas yéene nag jàkkaarloo. ak ñi nga xam ne ñoo koy ŋaññee. mandat boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye si njëkk nag. moo xam ci njëkk lañ ko ko laaj. wala déet luñ ci mën a wax mooy bari na ci ay sénégalais yu sàkku ngir mu bañ a sampaat ndëndam ñooñee nag dana leen ko nangul am déet loole bisub tey bi lay leer yem ak ñetti fànn ci weeru juillet foofee ca palais de la république.